ay dara ñu ngi koy con euh, euh, interpeller solennellement na nekk journaliste waaye bu mu fi nekk di propagande ndax li mu doon def ce matin du journalisme ñun jàng nañu xam nañu lu xew ñu ngi koy interpeller il n'a qu'à arrêter bu mu ñu wax loolu lu ñu bëggul wax bu mu ñu def loo lu ñu bëggul def parce que am na loo xam bu ñu ko waxee dina am neneen ni mu demee ba muy teg CD wu euh, Talla Sylla di wax pour pourquoi tegul CD Idriss Seck lui et moi. bi mu génne woon di insulter le président Abdoulaye Wade pourquoi Ahmed Aïdara teg ko muy teg leneen bu fekkee moom dafa génn cadre journaliste di wax loolu donc ñu ngi koy interpeller il n'a ci li muy def parce que li muy def ça ne passera pas xam nañu Idriss Seck manipulateur bu dee day yeneen di leen manipuler ñun ñoruñu noonu muy def di neexal nit ñi ñu nekk PDS nekk ay tóobam bu dee day ay tóob ci presse bi Ahmed Aïdara waru ci bokk ndax honoré wul presse bi loolu ñun dañu respecter journaliste yi waaye li mu def ce matin c'est à la limite inacceptable et scandaleux Nous, ko arrêté Nous avons interpellé solennellement les petits ci journaliste yem ci de presse mais bu mu fi def ay revue waxtaan bu propagande en faveur de Idriss Seck mi nga nommé Trump Seck il est pire même que Trump